tóor Xaasim Laay kon tey ñun waa presse nañu xam ne bés bu Bakar Niang suñu bés la bésam bésu promoteur yi la daan dafa am duuru casquette journaliste promoteur kon promoteur yi jàpp nañ ci wet ñun journaliste yi ñu jàpp ci bu ko defee bés bi mën a euh, jëm ci kanam kon nag càkk déwén bu Yoff dañ leen di présenté rek après ubbi question réponse yi pour les deux lutteurs càttu ngéwél bu Yoff ak fils de Zalo ñëw leen ñu présenté drapeau yi voilà yéen ñaar taxaw leen lii ci kanam pour que su ma mbokk journaliste yi mën a immortaliser moment dañuy ñaan Siteu ak Papa Sow ñoom ñaar ñu présenté drapeau bi nga xam ne moom lañ leen tuddee ngeen ñëw jox ko euh, ñaari mbër yi euh, ñoom ñëpp ñu jàpp xam ne ba si daal yéen lañ ko tuddee ah.

partie bi réservé à la presse ci événement bii nga xam ne moom la ñu tuddee le choc des guerriers léegi suma directeur général yokk ci c'est le choc de l'indépendance le choc du soixantenaire de notre accession à l'indépendance te ku xam indépendance xam ne balaa nga koy kon choc de cœur yi bu ñu ko amalee au lendemain de la fête du 4 avril euh, mu nekk 60 ans d' indépendance du Sénégal bés bi dafa couleur boppam ba pare ñu boole ci ñaari guerrier ñaari jàmbaar yu nga xam ne kenn ku nekk def nga ay preuve ci làmb d' abord moo jiitu Siteu ci biir làmb nekk ku nga xam ne ci waaram li mu ci bay bëri na teel a dugg ci làmb loolu ba tax na sax boo koy xool dana naan xëy na papa mag la mais yi teel bëri moo ko jàpp mu nekk ci lutteur yi gën a performant ci arène ndax bu ñuy xool au prorata des ci ñi ëpp ndam ci biir làmb ji la bokk ndaxte ci ñun journaliste yi lu ñu jàpp xayma ko dañuy wax Papa am na vingt une victoire mais moom boo ko laajee dana laaj ëpp na ndax am na yu ma bëree ci àll bi yu ñu comptabiliser wu mais officiellement dañuy wax vingt et une victoire am na ko ci làmb Tapha Gueye moo ko ëppale am vingt cinq victoire ak li nga xam mooy Boy Kayré am vingt six victoire kon am cëgin dafa yomb dafa ëpp di cëgin ndax li mu def ci làmb bëri li mu bëri ci ay combat yi tamit mënuñu toog di ko lim mais bu ñu la nee rek daan na lees daan na Birahim de daan na Alioune daan na Santangine daan na Baye Mandione daan na Boy Sey daan na Tafa Boy Bambara daan na Paul Maurice daan na Bac Seras daan na Zos daan na Té daan na Tonnerre loolu rek ci lim. ak mbër yooyu doy na présentation pour Papa ak ku nga xam ne luy ni macha da ko indaale ci biir laaw ba ñun journaliste yi mu jaaxal ñu ba ñu tuddee ko le phénomène de l'ensemble Siteu nekk lu ndaw ñëw ci làmb am coow lu nga xam ne ñi ko jiitu ci làmb gën ko ci yàgg amuñu ko cote de popularité bi mu am ci mbër gën a populaire ci làmb la ko loolu nag c'est pas apparu ex nihilo maanaam du dafa ñëw rek ci làmb ji mbooloo moomu topp lu mu liggéey la démb tey soog a ñëw ci mbapat d'abord ba ñëw ci arène wane ci jom fulla ak fayda ci diir bu gàtt nga xam ni sos bi mu daan Papa Sow ko rek loolu doy na boole leen mais bu dul woon mbër mu def ay preuve bu dul woon mbër mu am coow li mu am amaana Papa du du ko may chance bi mu duñ ko may parce que bëri nag dañuy wax ne euh, garab la ci kaw la ñuy fekkante moom ci biir bu gàtt keroog diggante bam sos man damaa yuuxu ndax càmmoñ ba mu kon rimbax ba léegi mi ngi des ci xel yi diggante ak Zarko xam ngeen na mu ca def mu daan Pape Mor Lo imposé imposé daan Naaru Sogas sos 3 daan bébé ëmb daan euh, mbay sos daan ki nga xam ne moo di euh, ñaax ñaxal ñaxalam ñaxalam ak maanaam seeraas mi ngi noonu alaaji ngay jërëjëf kon tey nekk na champion bu nga xam ne ci biir làmb am na fu mu teg bëgg bëtam bëgg faa egg waaye papa day faral di wax ne man xuma escalier kenn bëgg a dem fu sori wala nga ñeme wala nga bëgg ngay ñeme kaani parce que man damaa mel xarit moo tax combat la bu nga xam ne jaay na bopp présenté na boppam parce que papa ku ko xam xam ne moom c' est un lutteur offensif c' est un lutteur explosif ku xam si te xam ne bàyyi fan la lu taxaw ci kanamam yaakaar na ni da ngaa war a ramassé dem ci leneen lu ko mën a may fi tam may noonu kon papa du combat bi nga jëm tubarkalla macha allah combat dootu ko te yéen ñaar da ngeen a am défi mag parce que fii làmb toll ak jafe-jafe yi làmb am yéen ngeen nekk teloor yi nga xam ne yéen a fi am combat bu tax nit ñi di wax kon yéen yéen a war a relever le a war a créer déclic yéen a war a ak ñi nga xam ne dañoo bàyyi làmb yéen a leen delloosi ci làmb moo tax bés la bu nga xam ne lu ngeen ci def ci promotion lu ngeen ci def ci fulla ak fayda doyul lu ngeen ci def pour bëggal amateur yi doyul parce que yéen caabi laa ko jëlee ci seen loxo kon nag dañuy bàyyi d'abord Papa Sow mu nuyoo ubbi waxtaan bi jox si te mu nuyoo ñu ubbi laaj yi journaliste yi laaj ko ay Papa Sow vous avez la parole. salaamaaleykum mbooloo mi ak ak ñuy waa restaurant bi ñuy presse bi ñuy wax famille Sénégal ñuy sponsor bi nga xam ne ñu koy wax Alicorp ñuy waa IDEA ñuy waa kër gi jaajëf ko ñuy aussi permanence sur la chaîne ñuy tëdd yëpp ñuy aussi waa PCH wala ministère ñu ko. waaw moom na dugg laa waaw. ayca si taal. jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf Samba Amadou borom Amadou Boussou. maa ngi nuyu ñëpp ñu fay fii ñu ngi suñu seen sama benn xarit mu décédé mais vraiment Zize vraiment sama kii mais mais lu bokk si man lu lu jóge si man lu métti mais wax dëgg ma soog a am nañu mais li gën a bépp li nga foogee séeréer si naanu bi ñu mën ko daanu mais mën naa ko wax ne di waa ñu si tàmbali ba tàmbali waaw kay Merci beaucoup. nag dañuy daal di rek ubbi laaj yi man tey moom pour la laaj damay réguler rek jox sama mbokku journaliste yi ñu sàmm seen laaj ndax ñaari mbër yi wax naa leen ko kenn ku ci nekk dafa am ginnaaw ndax papa boo waxee mu ni Fass Colobane Gueule Tapée ak li ko wër parcelle 1 ba 26 ñu ngi ci ginnaaw nga wax si te mu xamal na moom tamit. ni jàmm gën caaro yi ak li ko ñu ngi ci ginnaaw waaye tamit ni mu waxee Fokone séeréer boo ko déggee xam ni doomu il di Saloum la doomu ñooñoo jon man Papa Omar Soul man looj ba baasul ba jàpp gox goxaan yooyu moom bu bëree bëri war bu bëri bu war naa bëri dañuy faral di wax ni doomi bër jàngi bëri yàgg yàgg lees na la ñoom papa ma ko jiitu ci làmb am na sax ñuy wax ne papa ko daax la bëri Ousa di maanaam moom tamit nekk ci làmb mu nekk ku nga xamante ne nii da ko ñëw frayer passage am ut turu boppam ba imposé kon ñoom ñaar seen combat dina metti lool dina tàng lool ki njëkk bindu pour laaj mooy Assane Waalo Gueye sunu làmb Assane Waalo Gueye sunu làmb Euh, ñu bu fekkee am na micro baladeur wala nga ñëw fii rek sax sa laaj. waay waaw nga ñëw fii ok. salaamaaleykum. ñu ngi leen di toog Pape Abdoulaye journaliste yi ak waa Sénégal yi. am na en fait j'avais trois questions donc ça s'adresse à Papa Sow l'autre à Sita et à Joël Pape Abdoulaye. Papa Sow ñu ngi toog ñun ñëpp ñu ngi leen ne que instant bii amoon nañu kii léegi est-ce que yow mën nga doon leeral jour bi ban kuréel ngay jël ngay dem face dem lu nekk ba ngay créé yéen ñi wala da nga doon wàllu donc mooy question bi sax yow nag Papa Sow léegi si tam maa déglu lu bëri soo leen laajee danaa na si la Papa Sow moom daa am lu ñu ko expérience si tam risque rek la ko question loolu da nga koy dëggal wala ak bu dee li dégg nga ko est-ce que loolu dérangé na loolu dérangé na troisième question bi Ababacar Fall la la koy leeral sànq wax nga le jour bi jiyee lu am lu ko baax doon jiyee mais est-ce que am na logistique nécessaire parce que la informé bi trop pour que nga réussir sa sa sa initiative boobu. Hmm? merci beaucoup. d' abord mën nga tontu ndax mesure d' exclusion bi la dal ci Fass ñëpp yëg nañu waa Fass nee nañu euh, dàq nañu ci écrit bi bokkatoo fa moom muy laaj ci ban couleur ban label la Papa Sow nar a bëreesee ndax rock énergie la yoon wala boobu daal buy ñëw alhamdulilah waaw dañu fàttali wàllu at mi daal ñëpp jàpp ni incha allah rabbi 5 avril fële ci arène nationale daa bëri loolu daal laa mën a incha allah. papa bëri si moom mënoon ko bañ a def parce que da ngaa jël avance waaye comme dañ laa daan avance laaj bi leer na rek nan ngay ñëwee nan ngay àndal parce que loolu actuellement nii war na mën a leer ci bopp yi nga xam ne ñooy journaliste yi loolu lay la laaj waaye bëri moom dañ ko def ndax ku jël avance dañ ko. waaw ñun daal doomu Fass la man kenn mënu maa génne Fass xëy na mën nga ma génne sax ci association wala structure mais man maay Fass Fass ay Fass est-ce que mën nañu ci génne boo ba mu Fass yëpp génn naa Fass Colobane te Daara HLM partagé 1 ba 26 ñoo Cambérène Kaolack Kajoor fu si bëgg poisson nekk rek ñu ngi leen woo ñu préparé seen incha allah. licence bi ban kii moo ñuy nekk ban association. licence moom day na naan ASC Diallo wala ASC Sampaate wala ASC nangam licence bi dina am ASC xanaa dina am écurie ban structure la licence bi di nekk. en tout cas daal rajo laa bëgg a bàyyi demoon demoon tout seul dinaa ko def di ñaan yàlla may ma incha allah. Alaaji Gaye dafa précision boo si bëgg a indi ci laaj boobu. waaw dama bañ mu doon mu doon débat bi. dama ko bëgg a laaj pour que. waaw. te dama bëgg a xam ndax président Abbas Mbengue ñu nangu signer sa licence ou pas parce que licence signature collective la te président écrit moo koy signé ndax yaa xam Abbas Mbengue Abbas Mbengue nga signer sa licence ou pas. waaw lu ko dundoo rek li nga siy dund dund bi Abbas Mbengue yàlla mu ñu ànd ak ba sama avocat bi mu sonn ci man biir ak kër gi biir nag ba tey doo tey ñu sama kilifa la ma koy ñaanal rek ma ne ko ñaanal sama commande bi ñaanal ma si xam naa daal papa bëggul xuus ci loolu kon ñu jàll ci beneen laaj bi nga xam ne moom la laaj Siteu Siteu moom mu ne dafa dégg daal wala mu moo la ëpp expérience moo la dàq bëri yow làmb am ndax dégg nga loolu wala yi tamit bu dee dégg nga ko ndax lu lay ci combat bi. financé wu financé wu benn yoon te expérience bi tamit accompagné wu boobu Pape Abdou Fall mu ne innovation nga indi ci wàllu billetage nga ne dégg am te làmb ku ne xam na ni dafa xaw a inform informel xaw a réfractaire ci ay innovation alors ndax yaakaar nga ne tuubaay boobu dina prospérer. waaw damay apporter ak diplôme ak non. allo ok damay apporter benn précision bien dina am mais dañ ko dul jaay ci instant à deux mois de l' événement danaa leen fan yu néew dinañu jël suñu ay matuwaay wax leen nan la ñuy jaayi bii. dama nekk en partenariat ak banque agricole du ci kaw loolu am na yu ñuy développé yoo xam bu soobee yàlla kuy jënd billet te nga koy jëndee même stade ba boo fay ñëw sa billet danañ la ko jox avant ngay egg ci stade ba cela am prévente waaw prévente bi mooy que ni dañuy jaay nit avant événement ku dikk joxe ñu daal di la koy scanner nga daal di dugg mbaaru yàq il faut que ñu seet nan la ñuy doxalee ba apporter des innovations ñi nga xam ni ñooy amateurs fan si club yi ñëpp dinañ jël suñu ay matuwaay fii ay fan yu néew wala fii ak un wax leen mbir dinañ leen dajale wax nii.

vérification bi ñoom ñoo koy scanné wane ni lii valable nga daal di jàll loolu mooy innovation majeure bi nga xam ne moo am làmb ji. jërëjëf lenn Omar Bayoba enquête Omar Bayoba journal l'enquête. waaw ça va après nga jël combat ba pare est-ce que dafay nekk avant ci nga inconvénient yow maanaam dafay dissuader wala avantage lay nekk yow pour le combat merci. ay jot a baax maanaam daa daa am une daa. le 23 octobre. daa ko am le 23 octobre la man ñu mën a am le douze décembre ci motu bi daal waaw kon xabaar ñu koy juróom loo xam ne amuñu ci xel daal daal génn fi Dakar bu bëri fu nekk man xel ñaar ko ci daal ñu say appartement le jour ji dañu def incha allah merci beaucoup moom maanaam li ko bëgg a xam ndax source de motivation lay doon wala sur le plan mental et psychologique dina am lu mu la affecté parce que ku ne xam na ne phase fa nga juddoo fa nga yaroo fa nga màggee fa nga def sa carrière nga war a xëy bëri ji ci beneen la lay wane ci beneen kii loolu lan lay def ci yow. la wax ok ok bon pour xam-xam loolu faase la xam-xam ñu ne faase waaye nag làmb boobu yooyu noonu rek mën naa xëy ma daal mu rek yow yàlla jóg moom ànd bi day yem te ni yàlla fii doo ko yemalee dara rek dara rek boo ko mën xale waaye dafa dal ñu seet ko lañ bàyyi ko ak jiw bi dara dara nga xam ne ànd na dara jël loo fi wax ku ci toll ñëw pour effacé wu ànd ànd na dem na dara rek taw suñu réew xam ne mu def ko nañ ànd ci ngor lépp jeex ci ngor waa soxla yi mën naa sax yàlla defoon mu am xaalis yëpp xaalis la am heure bàyyi daal mu ne xool leen moo war a gën a may xaalis ndax làmb xaalisu làmb yëpp a dégg rek yëpp a dégg rek waaw fii dara jarul fi ñu ñaaw na rafet merci Pape Alioune Mbaye. waaw Walfadjri. dégguma. non non. Pape Alioune. Pape Alioune Walfadjri ñëw Samb salaamaaleykum mbooloo bi jóg leen di nuyu kenn ku ci nekk sa tur ak sa di nuyu ki nga xam ni mooy Papa Abdou Fall mi taxawal bés bi di ko ci ñaanal mu am ci ndam di lancer rek benn appel saison bi door na combat yaa ngi am waaye fa tubaab fa jàll combat bi bokk na ci yaakaar yi nga xam ni mën na tax làmb gën a suqali kon na ci ñëpp jàpp ñëpp ànd ci liggéey di ñëpp ñu jël nuyoo di ko teg ci loxo koo xam ni suñu kilifa nekk ci jotaay bi olof yi faral di wax ni sa naaw góor soo bëggee mu naat doo ko dégg sa xarit waaye doo koy dégg xaritu naaw góor lam bi suñu bëggee mu naat mën ko dégg la président sa cër ak sa wàccuwaay mbokk yi bu loolu weesoo may dokkeel ñaari champion yi nga xam ni ñoo war a daje muy Siteu muy Papa Sow ñoom ñaar ngeen ko tuddee ak laaw papa a joxe sa jërëjëf sa wàccuwaay li waral ak wax ni ragal féete rek ndax war a taxawal lu bees luy décret bi ñu bëggoon xam loolu ndax am na ak bu fekkente ni pare na ak combat bi di ñëw le 5 avril ndax it bëgg a defar say kii bëgg am staff ak ñu liggéeyal nekk loo xam ne pression la Siteu ñu lay jox sa cër sa wàccuwaay di la nuyu di wax ni Siteu mbër mu mag la mbër moo xam ne fi mu yegg ci làmb jomam ak jàmbaar moo ko fa indi waaye Siteu fi mu ne tey nga xam ni ñooy yaakaaru équipe ba nekk ci loxool suñu yaay Max Mbargane moo am loolu expérience ak combat nga xam ne mooy Sa Thiès gis Siteu ak ki nga xamante ni muy jom gi ñëw na jàmbaar gi ñëw na fit ba ñëw na ak bëri ba waaye ci njeexital nga làmb daan ak daanu la ñu bëgg a xam ci loolu ban expérience bi ñuy tiré par rapport ak saw combat bi nga xam ne mooy Papa Sow merci euh, Papa Alioune kàddu yi rafet na d'abord euh, Papa nga tontu ci laaj waaw merci Papa Alioune kon première fois damaa daal ci ànd ak xanaa am na yoo ci boobu ma jël ay góor yi def saa dugal ci taal bi. kon ñax ñoo dem man de dama daal ci am na damaa paase ndax man ci ma tiraan damaa paase paase naa leen. mais xam naa fu may yem kenn ku ne te am na ñu ci koom dafa am na ñu jël respect mais ñi nga xamante ne xaalis moo tax ñu ànd ak man xanaa boobaa jóg rek jóg mu ñu ma place de l'Obélisque jënd essence jël ay produits ba nekk ci taal leen kooku

la sport bi sport transport loolu la. daa ngi dégg ñu mu dalee avance bu lay tas keneen noonu la ma dalee ma nekk ci kër kër boo xamante ne bii dama fay jiital ko boo ko fa kenn jëkk mais dama cee jiital ci cër yàlla laa koy joxe xale yi bu la monsieur Sëñ kenn nga dama nekk tey boole sama bopp man dafa nit dërëm dafa nit dara ba nga yaa rek tas may raxal su ma la conseil dama lay conseil lu ma am leen dama ko ci def te bu ma ci dërëm bu ci dëgg na leen war a na leen war a na leen war a dire dire vrai. merci beaucoup ñu jàll ci euh, Siteu mu ne bëri nga ak euh, Sa Thiès bëri ak Gouye Gui euh, ban expérience nga tiré ci ñaari défaite yooyu pour mën ci maanaam am profit sa diggante ak Papa Sow ban jàngat nga def ci ñaari défaite yooyu. waaw li ci war mooy jar naa ci expérience bu bëri wala ko bëri man bëri si laa xam am na ma xam lu bëri mais nag man lépp ku bëri boo xam ne dama ñëw si laa lu daan ma bu jógee si combat ak Sa Thiès am ci dëkk dama manqué expérience mu jógee sama combat boobu ci beneen combat ci laa am plutôt sama combat ma ne ko yëg dafa bëri na si benn tey bu ñu yeewu lamb ba ñu wax lamb dafa am crise kon man franchement bëri na loolu lamb yooyu ndax lamb yooyu bu leen fàtte sama bopp képp lu yëg dañ toog sama bopp képp lu yëg dañ toog sama bopp ñu toogee sama bopp dama sacrifié lépp loolu pour sauver lamb pour lamb am baaw pour lamb am njariñ dem bëri te bëri bi lépp maa ngi def mais ndax yoroo ko te loolu nii day lépp dama ko def ngir làmb te pourtant ñi fa nekkoon nekk ay nit làmb xam nañ ne sama bopp dafa tëj ñi fa nekkoon nekkoon seen seen xam nañ sama bopp dafa tëj Pape Fall bi mu tegoon combat bi te ñu bari xam nañ sama bopp dafa tëj mais dañ ñëw ngir ne lu bëri mais dama sëbee làmb dama sëbee làmb làmb jooju maa def lépp maa bëri ma lañ seen si man làmb pour ñu jëndee kon aw ma la ci wax lu sant yàlla félicité bi ma daanu loolu may wax mais dama bëgg chaque jour ñuy xool ni lan mooy njëriñam ak lan mooy tànkam voilà. merci euh, Sita Fatma Dia info réew mi Fatma Dia info réew mi bari xaw ma nu koy jëlee di ko sànni dof. asalaamaaleykum maa ngi di leen nuyu ñoom di leen ziar man ñaari question rek laa am. mais dama koy seetale muy site ak poisson mooy dama gis ni yéen ñaar ñëpp seen dernier sortie est-ce que combat merci leer na jóge ci defet yéen ñaar ñëpp jëlaat combat alors euh, ndax euh, bu ngeen raté euh, examen bi lu yàq seen progression ci làmb micro micro Papa Sow doole allez-y. waaw làmb moom loolu moo gis ne day wut ci ndax mu nekk ñu génn sa kër dama la tax a jóg yàlla mooy joxe dara maanaam keroog sax na nga ko gënoon bu soobee jaay ci suñu ba yëpp soo yaayee commencé na mais nag yàlla ndox la li mu mën nag mooy sababu bi pour ñaan yàlla yàlla lu ay dama ngay ñu daal loolu ci mën mais yàlla mooy joxe dara keneen jox ñu daal. c'est ça. waaw dañ ñaan yàlla loolu rek te loolu la ñaan yàlla waaw.